ألف لام لقصت عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم السلام عليكم sëriñ bi نيو mi ngi lay ziyaara ñi ngi lay baalu àq yitam ñi ngi yeesalit sunu yaakaar ci yow bi yeesal sunu pas-pas ci yow Sëriñ Moustapha moo wax ni naa la présenté ñii toog jigéen ñi ñoo di ñi nga xam ni tey ku bokk ci mouvement bi tey ndaw ñoo la boot nangoo nekk sa wéy jur ngir yàlla ak sa taxawaay góor ñi ci sa kanam da nga may wax léegi ni ma ñoom dañoo bejjaawandoo góor ñooñu fa tabaarakallaahu ñoom itam ñoo taxaw wax mi ku bokk ci mouvement bi dinañ la boot nekk sa waajur wu góor ngir yàlla sa taxawaay mu mel ni nag dafa am lu ma wax Serigne Moustapha léegi ci biir salle bi booba Serigne Mansour ak seegul ndax dama wax Serigne Moustapha ma ni ko ki yàlla nar teral ma ni ko yóbbu ko aljanna wis la ci moom parce que am na lu ko dàq téeméeri junni yoon mu mel ni kon ki yàlla yóbbu aljanna te fekk na am fu mu jaar ak moom Euh, daf koy wis rekk loon la deme ba tax na ci ñu di la seedeel ni ku yiw rekk xolam sedd na ñu di la seedeel ni képp ku yéene Cheikh Al jàmm xolam sedd na ñu di la seedeel ni képp ku bëgg xadara cheikhil xalifa yëkkatiku te bañ delloo ci gannaaw xolam sedd na ba tax na ñun ñii nga booleek Serigne Moustapha mu nekk ci kanamu mouvement bi ak tabaarakallaahu mbokki boppam yi ko jàppale di Serigne Mansour di Cheikh Alhaj Malick ak ñanu ko bokkal ci wàllu pas-pas ñu wax leen ni tey fa tabarakallahu seen taxawaay rafet na ci seen biir xabara maam ndax it dafay def fu ma waxeeg yow nga ni ma ku defe ni al mustarsidiina wal mustarsidaat Cheikh Tidiane comme moom booba juum nga nga ni ma ko ko mooma nga tëdd ca biir bàmmeelam nga ma duma leen tëralal programme mukk moom ma ca biir bàmmeelam mooy def lu jot mu dindi ñaari kayit def ko ci xel yi ñu doxal ko nga ni ma lu leen aarit nekkul ci sama loxo dama ko bàyyi ci barke borom tëraay ba ca suufu sororo moo tax lu bare lu naroon a yàqu yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam ak tëraayam fa tabarakallahu dox na diggante al mustarshidina wal mustarshidaati ak loola mu mel ni nag bër ci démb ak démb ak tey bëccëg la ci bëccëg yi mu nekk ñetti bëccëg yoo xam ni it fii ak junni at sëtaat yi dina lu koy nettali di ko fàttaliku waaw fa tabaarakallaahu loolu mooy li nga xam ni moom la ñu doon ñaan yàlla yàlla dogal na ko ndax wax dëgg yàlla fii ñetti fan yi xam nañu ndax am na borom wala amul borom loolu la yàlla dogal mu mel ni suñu wax du ci gudd eh, dafa am lu ñuy ñaan rek di la ko ñaan ci barke góor bi ku ñu juumloo woon ba mu ñàkk kurusam nga jéggal ko koo yeesalul du am kurus koo joxul ndigal du am ndigal kon nag yàlla sedd na la loo xam ne amul kenn ku mu ko sedd ci ñu seexal xalifa am fa tabarakallahu lenn rek nga leen di delloo njukkal li ma sa nekk sa taxawaay bés bu nekk te mooy ko tane dimbale ko tariqatan wa shariatan wa xaqiqatan ci loolu la la xam mu mel ni nag tey beneen engagement lañuy jëlaat ci sa kanam engagement bi ñuy jëlaat dañu koy jël ak al mustarsidiina wal mustarsidaat ci seen kanam Serigne Moustapha ak képp ku la yéene jàmm moom lañu bokkal engagement bi di la xamal ni loo joxoñ rek ñu dox ci kàttanu yàlla ñu ngi lay wax itam ni mësuñu xam ci yow jikko bu tuuti mësuñu xam ci yow ak mbaadoolo mësuñu xam ci yow réere sa bopp ndax foo mësa xëccoog seexil xalifa radiyallahu taala anhu li muy am am cër dafay jékki-jékki jàpp njàmburam wax ni duma sori ci weranteeg moom ndax jamono bu ma weranteeg moom ñun ñaar bala ñuy eggal turandoom ñetteel lu te moom lay faral loolu Serigne Babacar Sy waxu ko pour lu la neex waaye def ko wax parce que amu ci pexe te waxoon naa ci foire yi bu ñu hiérarchisé te hiérarchisé wuñu mystiquement hiérarchisé hiérarchisé mystiquement nag dafa am boroom ku ko mënul nga jàpp sa njàmbur waaye tudd Serigne Babacar Sy tudd Cheikh El Hadj Malick tudd Cheikh El Hadj Omar tudd Seydou Cheikh radiallahu taala anhum tudd yonent bi sallallahu alayhi tudd yàlla jalla jalalu dafa am ñu ko kooku bi ñu waxee ni hiérarchie la yow bu ñu la tuddee doo yelwaan kër Serigne Babacar Sy da nga bokk ak moom promotion te li ma wax xam naa ko maa ngi taxaw ci xataraam waaw bu ma waxul lu am rek mu gaañ yi waaw te waxoon naa ni dafa am ku wax ni euh, bu daje amee lu ca grave Fatma Lig moo ko wax ma ni ko mais sosuma ko lu ma wax rek ci xaqiqa laa ko teg waaw te du ma dem ba am 70 ans di waxati lu dul dëgg kooku yàlla may na ma naa ko ngir yàlla sama kilifa waaw ba tax na kon lu ma wax li tax muy métti damay wax li toutes les vérités sont graves xamul bu ci yomb vérité Moussa dafa grave vérité Issa dafa grave vérité Seydina Mouhamad dafa grave kon ku bëgg vérité bu neex ak yow nga dem te ñuy tëgg lamb ak sabar ñu jox la vérité bu woyof waaye bu dee xaqiqa rek biir kon ñu jël engagement ci sa kanam di ko seedale cheikhul xalifa radiallahu taala anhu di la wax ne amuñu ku dul yow di la wax ne yaakaaruñu ku dul yow di la wax ne day loo wulu ku yow te fa tabarakallahu doy ngay loo tëralit te loola la ñuy tënk waaw ñu lay ñaanal famille bi te ànd ak wér te ànd ak leer te ànd ak sutura tabarakallahu ñii la ko yéene yëpp bokk kook yow ci biir ak ci biir mboolem ñi la yaakaar kenn ku ne nanu ko natt ñetti téeméeri at boole ko nga dund ko yàlla la ko yàlla defal njaboot yi bëgg nañu jullit yi bëgg nañu ku baax bëgg nga yal na yàlla bëggal la ci biir ak ci biti te yal na yàlla gën a bëgg ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Thank you. Yeah. alhamdulillah ñu jël alxaj abdul hamid kan ca kaw la boobu mu ngi ci taxawaay bu metti di combattre ndax woon ak moom ci position politique waaw alxaj abdul kan moom la Cheikh Soutouri bi bind ndax Cheikh Soutouri tabakkalla moom la Cheikh sunu turandoo di waxal di ko jottali waa Sénégal mu bind ko leetar wax ko ni ko innaka min xulafa ittaqi sani ala alxaqiqa waaw ala jàbbi kan la mooy jur soxnaat bi kan samba abdoulaye ca ndar moo àndoon ak cheikh alxaaji omar bu doon bëgg ànd ak yow ba foo des ma des fa mu ne ko benn la bu nu bokkee jëm waay bu baax ne ku nekk jëm fa mu war a jëm rek mooy yaatal mbir yi noonu la ñëpp defoon ak yeneen ci moo tax mbir ya yaatu walaate mu des ndar tabarkalla tabarkalla jël sa bunte siré mu jur allah jàddu kan mu jur soxnaa sukan mu mel ni kon nag tubaab yi gë gën ñu noo xam seen bopp waaw ak ni ma jëkke doon tugal booba xale bu tuuti la waaye ñama fa amoon comme ay wëllëre ñoo moomoon dëkk ba yàlla xam na ko mu mel ni yooyu yëpp boo ko boolee bu la tubaab bëggee jàkkaloo di ko mën ndax dafay fekk nga gën ko xam boppam waaye bu dul woon loolu taalibe du ñu ne wax fii waaw loolu ñëpp gis ngeen ko yàlla xam na ko wala bu mu njëkk génn fekk tubaab yi taxaw ak seen mitraillette seen ba dogal ñu ne niveau gardon mu ne ko c'est niveau gardon boobu moom mënul dem te maa ngi jël sama oto doxi sama dox dina ñëw ma indaalee ko sandwich rek mu guddi ma jaar ceeb seetaan cinéma jënd sandwich reer indil ko sandwich waaw mu ñu ma seeti bu ci ñu gaabe ñu daal reetaan nekk xarit ba mu xëy nekk gouvernement général amee renseignements généraux ñu xaritoo di xaritoo di xaritoo ba ni mu faatu wallaay ndeysaan doom ji man la def bàyyam du def mukk lu ma tagguwul ku tugal mu mel ni kon nag mat mag ñi boo lu seen doom dee dem daara ñu jindal koy du dina siraatal mustaqim dañu xam ni jaam bu ne yàlla la amee waaw mag ñi seen doom du génn mukk jëm daara pour jàngi te bindal luñ ko ihdina siraatal mustaqim waaw wax nañ ni sax xale boo koy jox dana di am xelu wattu waaw moo xam tubaab lay jàng wala arab lay jàng mag ñi dañ koy wax boobu ba tey rek tabarkal la yàllaay dogal man fu ma wóolu ni ku wére nga duma fa bare tànk waaw loolu moo tax te comme ki tëdd fii moo ma dàq sàmm tabarkalla tabarkalla moo tax ñu bàyyi ko ak njaboot yi waaye terewul it ñu xam sunu wàll am wàllu tarbiya tax soxnaa sukkan daf ma wax fii ni ma kër gi dana yëngu bu yëngoo ji jubadi ñëpp te nekk ci biir kër gi billahi lazi la ilaha moo ma ko wax mu ne ma dinañ dëddu dana ma fekk nag ci sama bàmmeel waaye nga bàyyi ci xel ndax am na ñu fi yàlla indi waaye am na ñoo xam ne wat bakkan na leen fi indi mu ni ma ñi bakkan indi ñëpp duñu mën naan ànd ak yow soxna su kan moo ma ko wax mu ma kenn du booli nit ak i bokkam waaye bàyyil sa xel ci sa bopp da xam ne Serigne Babacar wax na ak man ndax man na ñàkk wax ak nit ñi waaye man mënul ñàkk wax ak man te nee na ma yow la dénk kër gi mu mel ni mu teg ca ni ma bàyyil ma xel ñaari nit ma ni ko kan mu ni ma Pape Malick Sy ak Aminata Sy waaw ndax dañoo àggagul fenn waaw moo tax ñoom ñaar doom lañ ci man du ñu rakk ci man tabarkalla tabarkalla yàlla dogal mu nekk ci loolu di dox ay mission amoon naa benn commentaire boo xam ne sëriñ Muniru daf ma daan wax ni bindal ko ijaaza waaw ni ma ndax li mu dox ci service góor gi benn muqaddam doxu ko kon nag bindal ko ijaaza moom commentaire bi commentaire bi maa ko jëndoon ñaar fukki junni la jaroon booba yëf yi yomb na maa ngi ko jënd ci kër militaire yi ca wetu cinéma Rialto booba fa la général ba nekk mooy général bi nu doon jàppale bi nu defee PSS dama ni ma bu la neexee ma def coup d'état ci Sénégal waaw wallahi laa daan naane café yàlla xam na ko sama waa kër di ma wax bi mu seq ak yow ay waaw ndax booba am naa juróom-ñetti weer gisuma xale yi gisuñu ma te tëral rek a tax waaw ñu di ma tooñ nag naan ma yàlla bu ñu seq ak yow ay ndax waxtu bu may jóg kenn du jóg ci kër gi waxtu bu may tëdd si ñëpp dina fekk ñu nelaw est àdduna noonu la waaw àdduna noonu la waaw léeg ñuy gas di gas di gas di gas ca Israël ba génne ay yax ñu naan yax yi ban yonente ko moomoon nga xam ni yàlla rusul kenn waaw ba tax na maa ngi fàttaliku ñaari yëf ñoo gënoon yitteel sëñ Babacar mooy ñaari gàmmu bañ ci Tiwaawan boobay bu jëkk bi bu ñaareel ba mooy ñamu bokkal ca ndar xam luy mission fa la juddoo nit fu mu juddoo rëy na ci moom yàlla xam na ko nit fu mu juddoo rëy na ci moom ma wax la ko bilaadun biha aqa shabaab tamimati wa awalu ardin massa jildi turabuha waaw soxna sukkan dafa xëroon ci doom bu boo amee doom buy ràng mënu mënatuloo am bant boo secréto ci kër gi dana ko lay yépp ngir bañ doomam bant jam ko tabarkal la ah de dafa sol sa ñu nekk ci loolu ba nit ñi commencé seen coow naan lépp lu am risque sëriñ Babacar Cheikh la ko yónni ñu bëggul sëriñ Babacar di wax ni kooku erreur la war na yónni sëriñ Mansour itam lu ñu ne nit ñi di ko wax ba góor gi dégg ko ma jël sama bagage bu jëkk dem Dakar gàmm jot ma ñëw gàmm si mu jël Mansour si ni ko demal jëli sa turandoo mu dem jëli turandoom dellu si ni ko gàntal na ma xam ni bu insisté woon du gàntal waaw Alaaji Mansour ko xam Sëriñ Babacar la te bu ñëwoon keroog rek ñaari gàmmu doom ci dess mu bind wa ndar ndax deg la koy wax te ñak ko xama tax te tek ko ci politique mu bind lettre jox ko ñu ko demal jangal mako ci ndar mu dem ci ndar bu gouverneur tuba ba fa ne ñu talalal ko yoon wi keroog gouverneur du Sénégal maître bu ne tek na fa soldat armé ko ba ci noppam ni ko Babacar si bi ñëw bu ko jot mu ni ko ñëwal dem jàngi leetar ba ca jàkka ja mu ni kon dañ lay dóor te moog Serigne Moussa ànd ak Serigne Mamadou te doy nañu ànd ba noonu la leetar ba dellusee choc ba ci Serigne Babacar am moo ko tëral defee musiba nag su ma ñëwee dama koy rusa nettali ma toog rek waaye xam naa ni góor gi ma gis am na lu mu def sama gannaaw muy xool ci suuf rek nangu ma xool ci bët ba mujj mu ni ma noonu de dañ fi amoon xew-xew ca Ndar daal wax ba àggal ma ni ko ana leetar ba mu ni ma mëtu ko def nii loxoom ni ma mëtu mu ne ma ay fan a ngi ñëw ci kanam tuuti di nga fa dem wax sa soxla ba mu jeex te kenn du ci opposé moo ma ko wax ci làmmiñam ma tax waxtu bu ma masaan dem ndar di gàmm sama xel loolu lay jëkk a xalaat yàlla xam na ko waaw ba na ma fa dem am na ñu ma àndal fi may jële café ci kër Alaaji Major Cissé ñu ne gouverneur du Sénégal moo la soxla tubaab la ma dem seeti ko mu ne ma dama jot benn pétition ñu ni sa tournée bi dem ci boole gaaya ma ne ko loolu am na mu ne ma gaaya boo fa demee ñu rey la wax nañ ko te duñ ci génn te mënuma la protéger parce que dëkk ba amul mbett du ma mën a yónnee ay militaire ma di la ñaan ci sama wëllëre ak sa papa ak sama wëllëre ak yow nga bañ fa dem ma ne ko d'accord li ma ñëwee ci kër ga ma fekk ay nit ci kër El Hadj Major ñu di ma xaar man leen maa nga jëm gaayee man leen ko ci sa pas-pas àggul booy ba nga toog li sa bas bas àgg ba ba ànd ak man ñu wuti gaaye ñoo ba dagana ñu jàdd ci administrateur bi gis ko mu ni ma ah lu xew parce que gouverneur nee na dematuloo ma ni ko gouverneur wax na ko ndax maa ko ko wax waaye fa su ma yéene dëkk gaaye ñu dégg ni maa ngi fa jëm tubaab a tax dematuma kooku rus naa ko ma daldi fab wuti gaaye ak ñi ma àndal ña ca des des ndar waxuma des ndar waaye di reetaan di ca boole waaw waaw naka la ñuy jub gaaye ma ni nañu wuti bàmmeel ya ndax dëkk yaa nga foofa ñu ñëw ziyaare maam alfa tabarkalla la ziyaare jigéen ju mag ja tabarkalla tabarkalla ñaanal waa bàmmeel ya ba gis dëkk ba di rocceeku benn benn dinu fa fekk ma xam ni psychologiquement affaire ba jàpp na waaw waaw ca gàndi maatma gàndi xoromam sama doon tibbi ma ni leen tey lanu koy def noonu waaw yàlla xam na ko ba nu demee ba biir gaaye ñu ngi fekk ñu bare ngi armé ñu ngi amee yet ñu ngi amee paaka te kenn nekku fa ci biir gaaye ñu ngi leen jële ci àll bi yóbbu fa ñu dem kër góor gi Alim Diop may mun a mën nu yóbbu moom ni ko doon bëgg waxtaan ak nit mu daldi yéene lu ñëpp ñëw mu waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu rey fukki xar ak benn def ko añ tabarkalla defar ataay yi njar yi fetal yi jib ak ndënd yi ñu toog fa ba ba ñu gunge tagg yi kenn mënu ko nett waaw pour wax la ni nit fa mu ñeme kilifaam a tax waaw nit fa mu ñeme kilifaam moo tax mu mel ni kon fàttali la waaye fekke ngeen ko waaw ah, waaw fàttali la wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin waaw mu mel ni loolu moo dellu ci li sëriñ Babacar waxoon ni bu sama bët xonqee booba danga ma sore waaw kooku amul ku ko déggul waaw ma waxoon fii itam ni affaire conflit kër gi bàyyi leen ba fekk si ma waaw ndax comme defar nañu mu yàqu ñu defaraat mu yàqu ñu defaraat mu yàqu ku ne na tëye kurusam ku ne na tëye julleem ku ne na téye sëyam waaw rekk loolu la fi bàyyi te waxuñu ko nun rekk ci la ko waxe juróom ñaari weer dimanche junne wax ko lool rekk a fi nekk leneen nekku fii tabarakallahu bu dee ñu bokk ci tariqa bi sëriñ Cheikhou si daf daan wax ni man li ma jaaxaloon ci mbiru sëriñ Babacar mooy tariqa yépp la xaritoowul woon te nit ñi yëguñu ko te loolu jafe la mu ni bu ko defee nit ñi barkeem lañu seetoon waaye ciru yàllaam dañ ko fàtte woon mu ne bu kër gi yënguwul woon rek kenn du xam cëru yàlla waaw dangay defe ni rek Maodo ko jur ñu di ko jox addiya muy naan ataaya di defar manto di yu kenn xamul te fekk loolu du cër waaw loolu du cër bokkul ak cër mukk ah am na ñoo xam ne loolu rek li bëgg yàlla dogal daf ma daan wax ni bul xeet dërëmu taalibe barke li ci yow waaye taxul woon ma compter ca waaw waaye moom ma daan wax bul xeet dërëmu taalibe gàllaaj la waaw moo ko daan wax ñu ko masaan jox Chérif Sidi dafa ñëw toog ci wetam benn waaye ñëw indi enveloppe bu def un million dafa dafa euh, sama addiya la ñu ko defal ma fàttiya mu jàngal ko fàttiya keneen ñëw indi enveloppe bu def la lu toll noonu jox ko keneen ñëw keneen ñëw tawakkal la ba benn mbokk jóge fa ñëw indi juróomi dërëm yoo xam ne mu ngi ñàq ci loxoom sax ba tooy jox ko ko mu tàllal nu di ko ñaan ñaanal ñaan ga gën gudd ñu jëkk ña Chérif Sidi ni ko waaw ñii fi jaar ñëpp loo leen jàngal mu ni ko faatiye ni ko ah yow daal ni ngay defee du noonu kalam la woon mu ne ko lu tax mu ni ko man sama dafa sama am sama taalibi bu ñëw nuyu ma jox ma àddiya ma seet ko tax xàmmewu ma kayit gi ma jàngal ko fàtte naka la dëdd ma tàllal kayit gi ndeke du ñaar fukk ñaar téeméer la ne ma ne nañ ko dabi ne ñu dabi ko mu ñëw ma ne ko tàllalaatal moom mu ne ah ñaanaloon nga ma di ne mu ne ko ñaanu ñaar fukk laa la ñaanaloon ne ko ñaanu ñaar fukk laa la ñaanaloon tàllalal ma ñaanal la ñaan ñaar téeméer <laughs> ah waaw waaw moo ci tukkulóor moo ci séeréer <laughs> tabarkalla tabarkalla e waaye fekk na moom njaboot dafa rëy ci moom nde wujjewul soxorul wujjewul soxorul nag dafay am jikko waaye am na lu mu daan sedd ci sama wàll nee na yëg na ci man ñàkk wujje waaw soxna su tëdd na ca hôpital di ma ko fàttali ni ma doom jëm naa ci yow nga nga wujje ba tàyyi nga tëma yàlla mi tax nag moo xam ni muy def ak yow ci feebaram boobu la wujje boromam yàlla xam na ko mu mel ni kon nag bari na kilifa guy wax te aar sa njaboot a tax waaye wujje taxul lool la benn tubaab dafa ñëw fekk ko fi moom Serigne Babacar Sy ni ko dafa am lu ma la doon laaj parce que damay bind ci réew mi ma di la laaj tariqa yi fi ne bu ci gën Sëriñ Babacar ni ko marin bi ak gendarme bi ak militaire bi policier bi ku ci gën mu ni ko ñëpp benn drapeau la ñuy mu ni ko ah waaw tariqa yi noonu la mel loolu kenn mësu ko dégg mu ko tariqa yi noonu lañ mel benn drapeau la ñuy servir mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu ku yàlla jox leeru xaqiqa yaa koy mën lu ko mooy nga wax musiba waaw lu ko mooy rek nga wax musiba loolu ci la ñu yar moom la ñu xam ci moom li ci des nag amul solo dafa fekk daara boo ko njëlbeenoo am discipline boo ko mujjee yare di ko boo noon rekk la boo teelul xam xaqiqa dina mujj kenn dootu la mën supporter ndax yare di ko te koo gis bëgg koo yar du sotti waaw boo bëggee yar nit ñi da yaru moo gën moo gën waaye ñàkk yar ba noppi dama dem jagsaaw seeti alxaji abdul aziz maa ngi ànd ak sëriñ muniru maa ngi ànd ak alaaji mbay mansuur mu nu waxtaan leen ak nit ñi ñu waxtaan ak nit ñi ba àggal ñuy dem fekk tànk yi di metti mu wax Serigne Tijane si ni ko gungeel ma leen ñu ànd di dox ci àll bi ba mujj la ñu bay wax Serigne Mouniru ni ko waaw yéen lii leen di waare nit ñi fu leen ko jànge di ko tooñ noonu naan ko lu ñu yee xamuñu ko Serigne Mouniru ni ko dafa am koo xam ne ku gëj moom rek yëg loo tardé Tidiane ni ma man de géejewuma ak yow ndax su ma toogee ba xaru rek dese ma ma dem ndakaaru dem seeti duut saar mu tegal ma benn band ma déglu ko ba sama xol dundaat ma ñibbisi ci àll bi waaw sëñ Tidiane si moo ma ko wax nit ku bëggoon xikma la waaw xikma nag yombul yootul xikmata man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب إلا أولي الألباب آه شيخ مودان وخ لكم القشور ولنا اللباب آه أنا كم ببدال موم لنو دجل ينك خط غرس بنيان دجل آه بكونيو آه بكونيو nee na nee ñu ba buur tabarkalla ba buur yéene loo ne bu kenn ku tojati bopp mu tëj la gerte def ko ni àggal daara ja tojati bopp rek ma tëj mu ne ko àggal daara ja dëj wallaay gerte rek nga lekk gerte gu ñu lakk su na am gan gu fi ñëw te xamul àll ñu yóbbaale ko tool ya togg laaxu bi def ñu rey benn jël yàpp ba def ko ci biir laaxu bisaab ba fekk soppeeku na ba noppi tabarkalla la waa ji xam na xiif jàpp ko te ndeke mbëtt naqariwul mu lekk ci lu ëpp nag ñu ne nañu indi fas teg ko ci pour yóbbu ko dispensaire boobu benn góor ngi fi boo xam ni c'était un homme à tout muy góor gi Ibrahima Dieng mooma dalal Bassine mi mara bi ma koy dalal maa ngi ko fàttaliku booba it am na lu lu sama xel rekk dem ndax soxna si affaire am kenn xam ko te dafay betti nit waaye ma gis ko rek moo amee benn àlluwa di xoosa ko xoosaat ma ne ah kii de li mu nar baaxul <laughs> nga gis mu diw ci gerte bàyyi ko ba mu wow mu wut xeeru tiim di nga ko xoosee ma ne ah, dafa mel ni noos baa ngi bëgg a jeex de <laughs> ndeysaan mu xëy rek téye ma ci loxo bésu àllarba yóbbu ma ca daara ji jox ma góor gi Ibrahima Jang ma ne ah ma ne xëy na du yàgg waaw maa ngi foog ne xëy na feeg ngoon walla bu yàggee ba yàgg feeg suba ndekkee moo wéy ba tey <laughs> wallaay ndeysaan góor gi Ibrahima Jang nag c'était un homme à tout faire bu la watee doo ko yëpp ndeysaan te bu solee mbubb dañ koy seetaan daa gëj ko sol turki bu gàtt rek la daan sol ndax service bés bu solee mbubb nun ñëpp dañ koy seetaan wallaay ndax jéema liggéey rek xaritu benn bakkanu Sidi Ahmed si la woon bi Sidi Ahmed di dem dénk ko Serigne Babacar ni ko ndax dafay sama wëy la lool mu nekk ci kër gi ba fi la sëy fi la am njaboot tabarkalla tabarkalla mu ne jarul yóbbu ca dispensaire ba nañ ma ko yóbbul ca bunt kër ga ndeysaan ñu teg gan gi ci kaw fas wi tànk yaa ngee lang sonn na lool ba ñu defe balaa si sax dana dee ci yoon bi ndeke góor gi ku xam affaire médecine la te nun xamuñu ci dara ñu indi ko ne ko ñu dugal ko ci néeg bi mu ne ëpp naa def dañu ko tëral ci buntu kër gi tëral ko ci ñu wut ndés tëral ko ci buntu kër gi indi njëganaay mu ne ëpp naa def nañu delloo njëganaay bi mu jaaxaanal ko bopp bi tegu ci kaw ndés bi ndeysaan mu wut eh, sàkk bu ndaw bu piisu malikaan yi def ci tuuti suuf takk ko tooyal ko fi mu jaaxaan mu bank tànku càmmoñ bi xëcc tànk ndeyjoor bi ba mu talli mu jël sàkku bi teg ci biir bi dinañ ko bàyyi noonu nag boo kenn laal waaye nag la ca nekk ba gannaaw gee bal ya tàmbali <laughs> ndeysaan bi fajar di laata jot rek yépp rek le waaye góor gu yéeme woon la waaw te du weranteeg mag mukk ndax ne dañ koy fatigué xaleel rek waaw ba ñëw fekk ko xale yi ma ngay werante ma ngay werante ma ngay werante waat gàll gor gu bax la won te jàmbure wallahi foko fekk rek ci service la nek wallahi ndeysaan bu solee mbubb ñëpp ñepp ko sétan kenn mësu ko gis ben sœur mës na fi ñew di ma seet si ak ben labbe da dañ daan sét si gor gi waxtu wu nek ñu fonkon gor gi lañu waaw am na ko xamni ku bax rek fonko làbb yi mosuñoo may góor gi jàmm ñu ngi waxtaan si rek làbbi tubaab yi ñoo waxtaan si rek waxtaan si rek ba yàlla dogal benn làbbi di fi ñoo ànd ak benn sër mu ni ma dafa am ñaar ñu fi ñëw ni dañ la bëggoon gis ma ni ko ñan la mu ne benn làbbi ak benn marmisel nga génn ma ne ko kii la mu naa mar la bari yitte moo daan wat sëñ Babacar Si waaw te góor gi nag wat bu woyof moom la daan taamu doo góor gi rek ko daan wat ba ci kawaram yooyu taalibe yi daan ko ko ñaan xaj maxtaar bu mi am na ci lu bare waaye dafa mujj ndeysaan bi ma xawee tawat tuuti xaw jaaxle faf ma ko may ma rek nga garde ko ndax kawaru góor gi la te itam rek tawakkal la moo tax ñun li mu tiitaroo ci góor gi ndeke fekk na taalibe am ko ci moom bu yàgg moo tax nga xam ni ku gore la li mu am ci moom di ko tiitaroo fekk na taalibe am ko ci moom bu yëg daf ko dul wax rek tabarkalla loolu mooy li ci nekk loolu nag jar na sant yàlla maa ngi amee benn kurusam mooy kurus gi mu jële ci Sidil Hadj damu nekk ci fotoom ci loxo bi bu leen ko seetloo du du du du yaxu ñey bant la waaw maa ne ko mu réer ma nag mu mel ni àdduna dafa tukki ci man ndax kurus ga Maodo ko moomoon looloo tax mu foroon ci moom Alaaji Abdu àbb na ma ko at fukki atu yàlla ma gàntal wallaay ndeysaan kurus ga jikki jikki rek ma tëdd ba guddi gis ko mu ne ma mi ngi ci barab sàngam wallaay fekk tamsiir mbóoj di agsi elaaji tamsiir ma ni ko dawal jëli li ma kurus mu dem jëli ko rek inti yàlla xam na ko loolu daan na ko di jëfandikoo mu mel na kon ku wut ko yaakaar rek boo ko amee bu la ko leneen jaral bu la ko leneen jaral te it am na lu mu leen daan wax gaynde wéet du ko tee xare yéen ñëpp wax na leen ko kon nag dama wéet ak aw ma wéetal ak yi du lay waaw yooyu du lay gaynde moom wéet du ko tee xare waaw mu mel ni kon nag di ci bàyyi xel farata la aussi bien ci côté góor ñi que ci côté jigéen ñi ndax itam yonent bi moo jëloon sidna Khadija sidna Khadija bi ko yonent bi jër ndaw la ñaar fukki at ak juróom rek la am sidna Khadija am na ñeent fukki mu jël ko te boobu jël jigéen ju am barke yombul ndaw rawatina jigéen ju la employé di la yónni nga di ko defal commerce di ko indil xaalis du la xaw a faale sax waaye sidna Xadija jikko jëmu gis ci yonent bi moo tax mu nangu yonent bi di ndawam di ko defal commerce ba noppi mu dénk ko buyoon mu ko dénkee buumam am na lu ñu gis ci sidna Xadija lu benn doomu arab nanguwul mooy dugg waañ roon la ni yonent bi révolutionnaire la moom fexe na ba sidna Xadija dugg waañ arab bu jigéen du nàmpal doomam dafay wut ku ko ko nàmpalal mu di ko fay yonent bi fexe na ba sidna Xadija moo nàmpal doomam ba tax nga xam ne yonent bi révolutionnaire la waxuma la boot nag boot moom ci wàcce sa bopp lañ ko yemale woon yonent bi fexe na ba sidna Xadija boot doomam waaw te ñett yi jigéenu arab du ko nangu moom fexe na ba ñu def ko fexe na it ba def ko taalibeem te moo ko daan yónni mu di ko jaayal marchandise am Bata yalla bu la mainel, rek may na la waaw yalla bu la rek may si malik ci dan daan wax ni main ma kenn wax ni may magu cheikh tidiane bu ma kenn wax ni may nijaayu cheikh tidiane bu kenn wax ma wax ni seen mu jeex si malik moko ke daan wax waaw moo ko dénkaane itam waa këram yàlla xam na ko waaw noon rek la fi laa ko fekk waaw noon rek la tabaakal la fi laa ko fekk xaw ma lan la itam waaw xaw ma lan la itam ba moo taxit ma bokk ko yéen kenn du ci xeeb ndaw sëñ Babacar semaine bi mu wuy jee boromam xale bu jigéen bu toll ni buñ génn ko ndax bàyyam daf ko fi daan indi dimanche ju nekk mu ziyaar sëñ Babacar bi mu koy nàmpal ba ni mu fer bés bi mu ñëwee fekk ñu suul ko ba mu delloo bés bi dellu xale ba faatu ni daf ko gunge waaw loolu yàlla dogal ba tax na yooyu mbiri sunu borom la tabarkalla tabarkalla ñu yar leen ci dénkaane leen ci te ki leen yar dénkaane leen ñu ngi ci bàmmeelam waaye dara réeru ko te maa ko ko ñaanoon kenn mësuma dégg ma wax lu jëm ci xilaafa xamaa ko ñaanoon ni ko lu war a yàqu yóbbaale ko mu nangul ma ko itam yépp a ngi ci loxoom de kon ba tey àdduna tukki na